c'est vrai comme ni ma leen ko waxee ñoom xalaatuñu woon ne dinañ ñëw assemblée parce que ñi leen investir bëgguñu woon ñu ñëw assemblée xëy na yàlla moo dogal li muy dogal ba ñëw fa waaye tey bu ñu ñëwee honorable député lañ comme ñëpp ñi gëm seen bopp aussi gëm askan bi nga xamante ni ñoom ñoo leen fi yónni parce que nag ku ci nekk am na ñu nekk ci sa ginnaaw ñi nekk sa ginnaaw aussi foog naa lépp li ngay def war nga balaa nga xalaat sa bopp nga xalaat ñi nekk sa ginnaaw ba pare tey bu ñu toogee munuma ne mënu nga ne commission da ngay voté tey ñu ñëw ba plénière parce que envoyé nañ la message wala wax nañ la nga ne doo voté loolu foog naa xalaatoo ñu nekk ci sa ginnaaw ak ñi nga xamante ni jour dimance bi muy taw élection yi ñu xuus taw bi dem voté ji xalaatoo leen boo leen xalaatoon foog naa doo toog dégg ku toog ci këram yor téléphone am ne leen bu leen voté gis naa si ñoo xamante ni ñu responsable lañ mais dama dama jàpp ne seen responsabilité des na parce que dañuy voté contre mais dañuy génn dañ koy naqarlu bu baax parce que bugguñu ko xam nañ ne lu ñu def c'est pas normal mais ñemewuñ ñàkk voté nit nag da ngay yàlla te xam ne yàlla rek moom mooy joxe tey nekk nañ député bokk nañ ci parti politique ku ci nekk tey da nga am parti boo jugee te sa parti boobu da nga koy défendre mais jiital ci intérêt Sénégal d'abord boo ci jiitalee intérêt Sénégal ki nga ciy teg nga door ko cee teg kon daal vraiment am na ci yu ma lu bu baax Sénégal ñoo ko bokk yéen da ngeen di ñëw fii gis ngeen ne ñoo ëpp ay doléance doléance foog naa budget bi bu jàllul woon xëy na président Macky Sall ñoom mënuñu ko tee doxal waaye dina dina compliqué te du rafet ci suñu dëkk kon fekkee da ngay poser ay doléance man su ma dul voté du ma benn doléance dama naan sama population gisuma sama bopp ci lii kon du ma wax seeni doléance damay xaar ba ñu ba ñu jug ma toog parce que problème bi loolu kese la wàccal ma toog loolu kese la wàccal ma toog nag yàlla ku mu wàcceewul doo wàcc te nguur yàlla moom moo ko yore te moo koy jox ku ko neex président Macky Sall moom la fi yàlla teg sénégalais yi aussi gis seen bopp ci moom comme sénégal yi dañu gis seen bopp ci ñoom ñoom tamit nañu nangul yàlla dogal xam ne suba aussi ku yàlla dogal ne yow yaa yaay nekk ci réew mi bu boobaa aussi dañ koy nangu waaye daal naa aussi balaa ñu xalaat suñu bopp xalaat suñu position yu neex ñi xalaat nekk ci àll bi nga xam ne lekk ku ñu naanuñ bëgg nañ faju te ñu faju bëgg nañ dem école te duñ mën a dem école balaa ñu xalaat suñu bopp ñu xalaat ñooñu ba pare. bon am na différence parce que li ñu gis fii nii depuis mu commencé ba tey bële amu fi woon. c'est vrai dëgg la ñu ñoo ëppoon majorité bu baax a baax waaye nag ñi fi nekkoon aussi ñi ngi doon doxal ñi ngi nekkoon ci jàmm ak salaam ku ci nekk mën nga défendre li nga gëm àdduna Sénégal loolu assemblée noonu lay doxee parce que ay nit yu bokkul ay gis-gis ñoo fi daje waaye nag ku ci nekk wax dëgg yàlla na xool nit yi ñuy seetaan ku ci nekk na xool vraiment nit yu mu bàyyi ginnaaw man ne damay faral di wax ne bu ma xasee ba ñëw assemblée damay jàpp ne man toogalu ma fi sama bopp waa Koungheul gee fal ma ñoom laa fi toogal kon lu baree baree bari balaa ma ko def dinaa leen ci xalaat ñemewu ma benn loi bu am njëriñ ci sama dëkk ñëw assemble ma ne duma ko voté tey ma fekk Koungheul am dëkk yi nga xamante ni amoon na jafe ndox te tey président am yu mu ci def am ay projet nga xam ne mu ngi ci kanam am dëkk yi nga xamante ne amul woon courant tey alhamdulilah am na gétt yu am courant tey financement développement femmes yi ak emploi des jeunes yëpp ma bëgg mu ñëwaat sama département kon budget bu ñëw te te concerné loolu man maa koy njëkk a voté